waaw France fokk ñu waxtaan ci ay mbiram <clears throat> encore que tubaab yi ñoom seeni affaire lañuy ñuy jéem a lijjanti kon nu nit fokk nu bàyyi xel ci lijjanti suñu mbir mhm. cependant li xew France daf ñu war di intéressé parce que France dafa am poids ci Europe mhm. ku xool euh, taxawaayu euh, Macron ci guerre bi am Ukraine nga xam ne France euh, dañ ko war a bàyyi xel pas seulement suñu rapport ak France mais implication yi politique international France di am ci àddina bi mhm. fu mel ni Ukraine par exemple wala fu mel ni Palestine euh, waaw am euh, Albert nee na y a une double défaite du Rassemblement national ak de Macron man dinaa relativiser tuuti défaitu Macron mm. oui parce que c'est vrai euh, kaaw Macron perte nañu une centaine de députés donc c'est une défaite mais lan noo naroon a am bu fekkoon ne Macron defut li mu def kon démission sax xaj na ci parce que ni euh, mu def nii attention euh, euh, bon je crois que moom ci boppam def na benn image ne dama taal bombe ci seen ci seeni ci seen i tànk alors effectivement ñëpp jóg ñëpp jóg su ñëpp jógul woon euh, front front national day day toog te front national bu toogoon ak majorité bi mu naroon a am Macron démissionné rek a koy des bi donc loolu pour man ñii euh, mu def gis nga ko kenn toogatut ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jóg def benn comme euh, bi bi Jean-Marie Le Pen naree gagné Jacques Chirac waaw mm-hmm. deux mille deux la woon defal xaw ma mille cent xaw ma lanati eh, ñëpp a jóg Cheikh ak jóge ci ñaata la amoon xaw ma bariwuloon ne dem ci quatre-vingt pour cent au deuxième tour donc mm-hmm. euh, loolu lu am solo la man li ma ciy jàngat déjà premier jàngat mooy dañu war di xam nun jamono bu ne par rapport ak défi yi nu jàkkaar lool naka la nu war a taxawe te Sénégal dafay réew mu nga xam ne dafa war a mën a dem te demut euh, tey am na benn régime bu bees bu fi nekk war na noo mën a xool naka la ñuy def ba jóge fii dem fu sore sore sore xam naa dinañ ci dikkaat ci waxtaan yi mm-hmm. deuxième observation ci euh, élection bi am France mooy effectivement le nouveau front populaire euh, ñoo am majorité mais amuñu majorité absolue d'accord euh, nañu seet ci seen biir et cetera bon mais man jàpp naa ne loolu dañ ko lijjanti hein ay ah parce que buñ ko lijjantiwut ñoom ñëpp ay perte te bu ñoom bu ñu perte front national day dellu si waat Eh, tubaab yi dinañ leen jéppi kon maanaam waa mais yéen yéen a ngi taxaw fii ne ànd ngeen ba ñuy jox leen suñu kàddu ngeen dem fële di def yëfu xale la et tout ça kooku moom duñ ko permettre y compris Macron ci boppam defe naa ne dina taw taxaw taxawaayu bu responsable d'autant que d'ailleurs suñ ko seetloo ci désistement yi ah oui am na ay député Front populaire yu bare yoo xam ne ay waa Macron ñoo désisté ba gaa jàll am na aussi ci waa macroniste yi ñu bari ñoo xam ne jàll nañu parce que Front populaire dafa désisté kon yooyu yëpp daal ay facteur la yoo xam ne jàpp naa ne français yi war nañ ci mën a profito pour redresser seen euh, affaires